kaw-kaw yooyu waroon Madina it loolu mooy liñ ragal ñoom jàpp nañ ni bu ñu demee yéefar yi danañu leen rey dogali leen ba tax na ñu ca bari dañoo gàntal woote bu bu leen yonte bi wala nguñu ñu wax daal ñun nanga nu daal waaye suñuy njaboot ak alal ji daal tax na mënuñu ko fee bàyyi di dem waaye fekk lay ba dëgg-dëgg ci taayal googu ñu taayal mooy jàppoon rek yonente bi du delsi buñ demee danañ leen faagaagal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 bal fanantumu an lan yanqaliba arrasulu wal muminuuna ila ahlihimu abada mooy da ngeen a jot rek ne yonente bi ak i duñu duñu dellusiwaat loolu képp moo leen tax a tayeel waaye langeen lay sax wérut noonu la yonente bi génne ànd ak ñi nangoo dem ñi ànd ak moom ci jullit yi mu génn bésu altine ci njëlbeenug digg diggiw tabaski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 daal yàllaak yàlla ak yonante bi day xam waaye gannaaw dañoo jógoon ngir umra si jógoonu ngir xare si daal li nu waroon def mooy nan jawali kaaba rek umra ji ku dox suñu digganteeg moom nag ñu xeex ak yow ba yàlla dugal ci la ci doon xalaat boobu la Abubakar joxe yonante bi daal di ci ànd ni kon bisimilah kon nañ jóg def na waaye fekk Quraysh nit bi ñu déggee génn na mi ngi ñëw dañoo daal di eh, def benn assemblée nationale ñoom itam waxtaan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 ak yuuxu ngir taral googu muy taral ci kaw yonente bi ni aliyun bindal bismika allahumma ali bind bismika allahumma mu ne ko bindal haza ma saalaha alayhi muhammadu rasulullah lii mooy li muhammad yonente bi yàlla bi yéwénoo ak suhayl suhaylu dogalewaat ko ni ko déedéet doo bind rasulullah ndax bu ñu xamoon ni yàlla la yónni duñ xeex ak yow te duñ la tere kaabal waaye bindal sa ak sa baay rek muhammad ibn abdullahi ji nga xam yonente bi ne Aliyun faral rasulullahi ji waaye loolu des ci Aliyun lool bi laaj ko mbind mi faral ko boppam ni ko bindal hada ma saalaha alayhi Muhammad ibn Abdillah Suhayl ibn Amr ni ko bindal bindal lii mooy li Muhammad ibn Abdillah yéwénoo ak Suhayl ibn Amr ci loolu yàlla wàccee ci ak wax yu eh, di dal ci kaw yéefar yi ci soppaxndiku googu di tagg it yonente bi ak jullit yi ci seen rafetu jikko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 waaye ginnaaw bu sart yi bu ñu bindee sart yi ba mu àgg daanaka bi mu dat na àgg rek la am ku ñuy wax abo jandal ku ñëw di dugg si ci biir jullit yi ndax dañ ko woon ca Makka te reewoon koo gàddaay te doom yi kii ñu doon fasanteel ko rek la muy Suhayl doomi Suhayl la léegi bi abo jandal ñëwee yonente bi ne ko danoo siñeente ak ñoom koléré te duñ leen war kon fokk da ngay a dellu ba tax na dafa dellu mu ne ko da ngay dellu te muñ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 daal di ne ko jullit yi alkuna ndax digal naa leen te defuñu waaye soxna si ku rafetum xel la dani ko waaye dangaa bëgg ñu def li nga def li nga digle rek mu ne ko waaw mu ne ko dangay génn te bul wax rek boo demee nga rey nga rey nga wat sa bopp te sa sa li nga war a mu daal dem ba mu defee noonu rek ba jullit yëpp daal di jóg gaaw rey seen hadiyu dal di watu bi loolu jàllee bañ nekk ci biir sulx bi am na ku ñu wax Abu Basir Utba ibnu Usayd mu jëkk daw ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw ngir jébbalu si waa Qurayshin yónnee yónnee ñaari gaañu di ko topp si ñu ko topp see ne li ñu siñente woon mooy ku daw ñëw ci yow da nga ko yebalaat yonente daal di koy digal ne ko dangay del dellu ak ñaar ñii di la jël si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 mu toog fa am yeneen jullit yoo xamante ñu dañoo jébbal woon ñu delloo leen mënuñoo dellu màkk mënuñoo dikk dikk madina ñu dem ñoom itam toog foofu fa kooka bañ doon fa mbooloo bañ fa doonee mbooloo nag aboo jandal moom yi nga xam ne dafa ñëwoon bàyyam delloo ko moom itam daal dem fekki leen bañ fa doonee mbooloo daal di wax ne ginnaaw waa Xuraysin ñoonu teree nekk ci suñu bokk jullit te ñoom buñ fa nekkee dañuy gën a xotal kon commerce mu ko jël ci ñoom loolu moo waral ñu toog fa commerce jaar ñu nangu ko léegi ray ray ñooñu mbaa ñu xeex ñoom ba waa Quraysh ñoo mujj yónnee ci yonente ne ko dañoo bëgg nga dimbale nu jël ñu lekk te sart boobu dañoo bëgg nga dimbale nu sart boobu ñu dindi ko muy ku ñëwati léegi daal mën nga ko téye yonente bi d'accord ak ñoom ci loolu kon ñooñu eh, li yonente bi waxoon kooku ne képp ku jógee fii ku ñëw ci noonu ñu dellowaat ko it yàlla dana ko moo koy jàppaleel boppam ba woon ko yoon kon ñooñu yoon woowu leen yàlla woon ba ñu mu mucc ci coono yi leen yëfar yi waroon di sonal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 lu ëpp mbooloo mi nekkoon ci islam dugg nañ ci dugg nañu ci biir dina ci kaw waxtaan ak diisoo ndax li ciy joxe ab tegtal mooy sulhu Hudaybiya yonte mi ngi àndoon bi neen teg ñeent téeméer gannaaw ñaari at la fatxu Makka am te bi muy dem yóbbaale na fukki junni nit ñu xamee ci ni kon sulhu bi li mu indi ci dugal ay nit ci islam moo ëpp doole li guerre bi daan dugal kon fatxu gi ko yàlla tudde ak fatxu dëgg la ñu gisee ci ni kon sart yooyu li muy diis diis yonente bi nangu alquran tuddee ko ak fatxu te gisaguñ benn màngal ak naqari gi naqari woon jullit yi te mboolem leneen ci naqari woon ginnaaw bi saafara wu bañ gis la yonente bi jublu woon yooyu yëpp ko boolee danañ ci xamee ni alquran ak wax yooyu la ko bàyyi ko ci yàlla waaye du xalaatu doomu nag bi yonente bi jógee ci xuday bi nag beneen doxin bu bees te mooy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 min muhammadin rasulillah ila hiraql azimi rom mu ni lettre bi mi ngi bàyyi ko ci muhammad mi yonent bi yàlla jëm ci hiraql mi doon kilifa rom salaamun ala man ittabaa al huda mooy maa ngi nuyu képp ku jaar ci yoonu njub ñu ko amma baadu fa inni ad'uka bi diayati al islam léegi nag maa ngi lay woo ci woote islam aslim taslam yutika allahu ajraka marratayn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 تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا mooy yàlla dafa wax yonent bi ne ko neen yéen ahlul kitaab kaay leen wisi ma ci benn baat boo xam ne maa ngi a ci yem muy ñu bañ a jaamu kenn ku dul yàlla te bañ ko booleeg dara bataaxel boobu wax nañu ni bi bataaxel bi àggee dafa wax ni ndax nañu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 mu ne ko nu aw askanam demee ci yéen mu ni ko askan bu baax la fa am maanaam sëñ na fa gën da bokk mu ni ko ndax am na kenn ku masa a woote lii mu woote nii ci ci aw askanam Abu Sufyaan ni ko déedéet mu ni ko ndax daa ngeen ko tuumaal aw fen ndax daana fen xam ngeen ci ay fen Abu Sufyaan ko déedéet mu ni ko ndax ay baayam ak maamam ndax buur da cee amoon Abu Sufyaan ni ko déedéet mu ni ko ña topp mooy su uya wala ña gën a néew doole ci nit ñi ñoo ko topp Abu Sufyaan ko ña gën a néew doole ci nit ñi ñoo topp mu ne ko dañuy dolli ko wala dañuy wàññeeku mu ne ko dañuy dolli ko mu ne ko ndax gis ngeen kenn ku dugg ci dina jëg mu jàkk mu mere ko bàyyi Abu Sufyaan ko déedéet mu ne ko ndax bu ndax dana war kulare da ngeen gis muy muy firi kulare Abu Sufyaan ne ko déedéet jamono bi ñu tol nag xamuñ ci moom firi kulare jamono bi ñu toll nag am nañ ko leer guñ dox ak moom guñ seq ak moom xamaguñ lu mu ciy def waaye xamuñu woon ci woon fële ko buur bi ne ko ndax xeex ngeen moom Abu Sufyaan ni ko waaw mu ne ko seenub xeex ak moom nu mu demee mu ne ko dañ koy seddoo rek Yisaa moo ñuy gañ Yisaa ñu gañ ko mu ne ko lu mu leen di diggal mu ne ko li muy wax daal mooy jaamu leen yàlla te bu leen dara li sunuy bàyyi daan jaamu jaamu xërëm yi daf nu koy tere di digle julli ak dëggal ak fegu ak matale kóllëre ak matale ab del ak del boo dalee nga nga fonk fonk rendi ni ko yii daal lay faral di wax ni moom lay digal nii wax nañu ni bi Abu Sufyaan waxee loolu ba noppi dañu ko léegi laaj naa la nga wax ne ci ña fa gën a askan la bokk laaj naa la ndax dafa am ku jëkk woote lii ci aw askanam nga ni déedéet bu fekkoon dafa am ku ko fa jëkk woote damay xam ne nit kuy toppandoo ku jëkkoon a woote dara képp la laaj naa la ndax xamoon ngeen ko ci ay fen nga ni déedéet te nit mënta bàyyi fen diggante ak nit ñi ba noppi di fenal yàlla laaj naa la ndax bu ay baayam buur da cee amoon nga ni déet bu fekkoon ne buur am na ci damay jàpp ni euh, nguur ay baayam rëcc rek mu bëgg koo toppatoowaat laaj naa la ndax sharif yi ñu baax ñi maanaam kilifa yi nit ñoo koy topp wala way néew doole yaa koy topp nga ni way néew doole yaa koy te yonent yi fi ma yëpp yéen ñu néew doole doole ñi ñoo leen ci jëkk topp laaj naa la dañuy dolli ko wala dañuy wàññi nga wax ne dañuy dolli ko leerut ngëm it noonu la demee ak ngëm ngëm yàlla bu duggee ci xol bi léegi dañuy dañuy dolli ko waaye du wàññi maanaam yonent yëpp ni ñu tàmbalee mooy seen mbir day tuuti ci njëlbeen gi waaye day dole ko dolli ko ba muy àgg fa mu war a àgg laaj naa la kenn dana ca bàyyi di mer di murtal dem nga ni déedéet leerug nga mit noonu la mel kum xas jaxasoog sam xel sax xol du xalaat di ko fa bàyyi woon gannaaw laaj naa la war nga ni déedéet ab yonent du wax laaj moom nga ni waaw ma laaj la nu xeex bi demee nga ni dañuy gañe ndi ko gañe yonent yëpp foofu lañ jaaroon laaj naa lu mu leen digal nga wax da leen digal jaamu yàlla képp bañ a bokkaale ak moom lii mooy li yonente yi daan dégg lii ngeen wax daal bu wéree xiraq leen ni leen ni ni Abu Sufyaan lii nga wax bu wéree fii ma teg sama ñaari ndëggu yi tey dana ko mos a mën ndax moo nekk ci foofu la tàggoo ak ñoom moom moom buur boobu léegi nag noonu mu yónnee yoon eh, bataaxel boobu kon dama ko ne ci biir bataaxel yi rek ndax noonu loolu mu wax ci bataaxel boobu rek bataaxel yi mu yónnee waat it maanaam mu demee na la ca wax yónnee na ku ñu wax Abdullah ibn Husaafa mu yónnee ko ca Kisra ibnu Hurmus isra moomu dafa xottite bataaxal la dégg nga yonente bi daal di ñaan ni yal na ko yàlla xottite waaye biir bu gàtt la nguur ga tasaaro mu yónni Jaafar ibn Abi Talib ci buuru Éthiopie ci Najashi Najashi moom dafa mujj jëbbalu ba bi mu faatoo yonente bi moo taxaw moo toog foofu ci ma Madina jullee ko noonu la yónnee ci buuru Misra ñu di ko wax mu Muqawqis waaye xis moom ba mu ko jàngee bataaxal moom itam euh, daf ko yónnee ay hadiya yónnee na ko ñaari jëbër ñaari jaam yu jigéen yoo xam ne Eh, jigéen bi ñuy wax Mariyatul Xibtiya te moo jur doomam ji ñuy wax Ibrahim ci ñaari jaam yooyu ko eh, kilifa Égypte gi yónnee woon ci la bokk yónnee ko yeneen hadiya nag yonte bi yónnee ci ki ñuy wax Munzir ibnu saawa moo doonoon eh, attekatu Bahrayn kooku yi dafa jëblu li mu jëbloo it bind la yonte bi lettre ni ko fii nag dama fee nekk ñoo xam ni ay nasaraan lañu ñenn ñi ay yahud lañu ñan ñi ay majoos lañ waaye yonte bi jox ko ndigalul mu yor atte bi atte ci atte ku ci nangoo jébbalu jébbalu ka ca nangu wute jébbalu nag nañu koy laaj lempo mu di ko fay mu tëralal ko ab atte mu kon ne noonu la yónnee ci ku ñu wax Hawza ibnu Ali te mu nekkoon Yamaama noonu la yónnee ku ñu wax Haris ibnu Abi Shamir al mu yónni ko euh, moom itam mu mooy mooy ke nekkoon Dimas moom itam yónnee na ci ab lettre buuru Amman yonte bi yónnee na ko Abu Lahab kon bataaxal yi mu yónnee yëpp nag euh, daanaka max naa yi noonu waaye néew na ci nag ku jébbalu ku ci dul ñooñu ma tudd rek amul kii amul ay résultats yu leer leer la kon ginnaaw bu xuday bi jàllee ba yonte bi bind bataaxal yooyu yónnee ko ci buur yi mu jamonoonteel euh, li nga xamante ne mooy ay xasawaat yu fi doxaat euh, ba moom itam résultat yu leer leer daanaka amu ko ay jaar jaar rek moom itam danañ ci jaar tudd raswatul raaba am na ci diggante bi ak euh, xareb euh, fa ñuy wax xaybar xaybar mooy yahud yi nga xam ni ñoo dajale woon kuréeli màkka xeet ci arab yëpp ba ba sababoon la ñuy wax raswatul ahsaab boobu ñu weesu woon ci ginnaaw muy raswatul xandaq waa xaybar ñii ñoo ko sababoon ñooy ñi nga xam ne ñoo demoon ca bani Qurayza waar leen bañ firi kóllëre giñ seqoon ak yonante bi war ko loolu moo waral bi jullit yi demee ba noppi ci mbirum Quraysh nga xam ne am nañ ay kuréel yu war dox seen diggante fukki at yoo xam ne xeex du am ñu jóg nag ngir régler mbiri tooñkat yooyu itam mooy waa Xaybar bi muy jóg jëm ci Xaybar wax ni ku bëggut a xeex nag bul ma topp waaye mbooleem ña demoon ca xumratul Xudaybiya muy junni nit ak ñeent téeméer ñoom ñëpp ànd nañoo moom dem ci biir euh, situation yooyu ci la kooku ñu wax Abu gi boobu ñu ci situation yooyu ci la jëbaloo Xaybar dañoo sange woon dañoo doon yoo xam ne dañoo am ay sange yu ñuy sange wu biir euh, mu mel ni dañ ko xaajoon ñaari xaaj am na ci xaaj boo xam ne juróomi sange nga ci biir muy sangees fa ñuy naa Naim ak sanges ka ñuy wax Asaab ibnu ak sañes ka ñuy wax xulaa xulaatu ak euh, sanges ku ñuy wax Ubay ak sanges ka ñuy wax an Nizar kon juróomi sange yooyu mooy benn xaaju xaybar bu ñaareel bi ñetti sange ñoo ci nekkoon muy xesnul xumus ak xesnul ak xesnul salaalim am na yeneen sange nag yu dul juróom-ñett yooyu waaye ndaw la woon yoo xam ni aguñ ci euh, dëgëraayu sang yooyu amuñ it kàttan gu toll ne googu ñu ñoom xeex bi dëgg-dëgg nag mi ngi amee ci sange su njëkk si xaaj bu njëkk boobu ma ma njëkk boobu nga xam ne juróomi sange ci nekk waaye xaaju ñaareel bi sax jëkk yonente bi di xare ñoom dañoo def islam te mooy dañoo joxe seen bopp kon sange si jullit yi jëkk song ci sange yooyu mooy sange naa Naim teg ca Assaab bubnu Muaas teg ca xulaatu Zubayr teg ca xulaatu Ubay teg ca xesnu Nizaar noonu lañ ko fatxoo benn pat benn ba yooyu yëpp dugg si ci loxol na bi sallallahu alayhi wa sallam xaaj ñaareel bi moom daf leen encercler rek ñu agragal dugg leen ñu daal di ñëw ñu def musalaha ak moom ni ko da ñuy bàyyi ñuy bàyyi suuf si di xaaj alal bi di la ko jox di la jox genn gi da nga bàyyi na fi ñu yor ko yonente bi dëppoo ak ñoom ci loolu sange sañuy wax Fadak nag ak Waadil Xuraa ak Tayma ñoom ñëpp it dañoo ñëw musaalaha ak yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci lu ab xeex di fa am moo tax yonente bi dellu Madina kon xasutu Xaybar noonu rek la deme ñu des ci xare yi nag ak eh, yabal yim soldat yim doon yabal jëkk fatahu Makka eh, niñ ko mën a gàttale mooy nii xasuwatu zaati riqa am na eh, ay ay kawkaw lañu rek yu nekkoon ay sàmm foofu yi di def yi saa jurug nit ñi dina génn di sàmmi ñu géel ko daal duggaat ci biir doj yi ñu yonente bi euh, dafa jóg dem dal ci seen kaw rey ña ne ñeces mu ñeces ñeces làqutu ji daanaka moom itam dund lu ba ca des mooy Xaalib ibnu Abdillah yonente bi yabal na ko ci banil muloox ca fañ wax xadit yabal na it Omar ibnu Xataab ca fañ wax turba ci weeru Chaabaan ci atum juróom-ñaar ci gàddaay gi boobu mi ngi ànd ak lu mat fanweeri nit yabal na ka ñuy wax Bachir ibnu Saad ci Bani Murra Ghalib ibnu Ubaydillah al-Laysi mu yabal ko ci weeru koor ci atum juróom ñaar ci Bani Awaan ak Bani Saalaba ci xare boobu ci la Usaama rayee kañ ñuy wax Murdaas ibnu Nahbak gannaaw bu mu waxee laa ilaha illallah te biñ ko waxee yonent bi ne ko kooka bu mu waxee laa ilaha illallah la ko Usaama rey mu naqari yonent bi lool ba mu feeñ ci jëmmi kanamam mu ne ko ndax gannaaw bu mu waxee laa ilaha illallah nga ko rey mu ne ko ah, waaye da ko wax ngir muslu mu ko tey nga woon a xar ab xolam ba xam lu ca nekk ci biir loolu dis ci moom gan ci rey gi rey nit ginnaaw bu mu waxee laa ilaha illallah ak donte da ko wax ngir ragal sax dañ ko waroon bàyyi Abdullah ibn Rawaha yente bi yebal ko Xaybar ci wàllu sawal ba tey ci atum juróom-ñaar Bashir ibn Saad mu yebal ko Yaman eh, ku ñu wax Abi Hudud al Aslami mu ko fa ñu wax al kon loolu ay saraayaa yoo xam ne dafa dox ci diggante euh, sulhul Hudaybiya ak fatxu Makka ca diggante nag la yonte bi jóg dellu Makka ngir mottale umra googe nga xamante ne moom la doon def tañ euh, waxanteeg moom ne daf koy bàyyi ba déwén te déwén sa bi mu ñëwee euh, waa Makka génn dem ca bitti yonte bi am fi ñetti fan wër Kaaba gi ànd ak jullit yi ginnaaw bi mu jógee ci umra googu nag ba tey yabalaat na sariyab ku ñuy wax abil awja mu yebal ko ci bani salim xaalib ibnu abdillah mu yebal ko fa dëkk euh, kaab ibnu umayr mu yebal ko ca fa ñuy wax zaatu atlah sujaa ibnu wahab mu yebal ko ci bani hawazin ñu ñëpp ay yeblal yoo xam ne daanaka amul ay résultat yu leer la ndax ñenn ñi dañuy dem ba àgg ñooñu daw dugg ci dugg ci biir dajale laqtu yi tax xareb mu tata ci diggante boobu la amee la ko sabab it mooy yonente bi dafa yebal ku ñuy wax xaaris ibnu umayr al asdi mu jox ko bataaxelam mu jëm ci kilifa ak busra ku ñuy wax surahbil ibnu amr euh, bokk ci wàggasaan dogale ko rey ko te surahbil moomu mi ngi nekkoon ca balqa nekkal fa kilifa hmm, xaysar ma doon kilifa ak moom la fa nekkaloon xam ci atem la doon dox euh, mu jàpp ndawul yonente bi yeewu ko yóbbu ko rey ko loolu nag gis ci bi lool bi mu ci moom gann mu waajal ab arme boo xam ne mat na ñetti junni nit daal di jiital ku ñuy wax Zayd ibnu Xaarisata daal di nag na Zayd yor drapeau bi jiitu bu ñu ko rayee na Jaafar ibnu Abi Talib jiitu bu ñu ko rayee na Abdullahi ibnu Rawaha jël drapeau bi bu ñu ko rayee nag na julli di tànnal seen bopp ku leen di jite mu mel ni nu rek feeñ na foofu ndax noonu mu leen tegalee ak noonu mu xam ne bu ñu rayee kii na kii jël noonu la ñu leen tegalee raye leen kenn par kenn bañ jeex ndax yente bi mu leen yebalee la leen dénk ni leen nag na ngeen dem ba fañ reyee sama ndaw lii muy Xaaris ibnu Umayr ngeen woo ña fa nekk ci diine islam bu ñu leen wuyoo baax na bu ñu leen wuyuwut ngeen xeex ñoom daa leen dem leen xeexi ci yoonu yàlla xeexi leen nag ku wedd yàlla te waaye nag bu leen wor bu leen soppi seen jikko bu leen ray xale bu tuuti bu leen ray jigéen bu leen ray am màggat mu jax tàkk képp ku beru ci ab uh, bérébam di jaamu di jaamu it muy xeeti labbe yi na ngeen leen bàyyi bu leen dagg ak garab bu leen mabbu ab tabax yëpp tere na leen ko moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu doon lu am solo ci ay jàngale léegi ñu daal di jóg uh, daldi dem ba àgg ci béréb bu ñuy wax maan ci suufus saam waaye foofu lañ dégg ni Hiraql mi ngi ci béréb ba ñuy wax maab ci suufus balqaaq ànd ak lu mat téeméeri junni nit ci waa Rom mboolem giiri arab yi nekkoon muy lax laxm ak jusaam ak balqin ak bahra ñoom itam dajalee lu mat téeméeri junni nit yi bi ñuy ñetti junni nit lañ yaakaaruñu woon moos ni danañu daje ak arme bu toll nii ay ñaar téeméeri junni nit ci ñetti junni nit loolu xel na ko nga jaaxle ni kon nañ taxaw nag nañ def ndax ñaar téeméeri junni nit moom ñetti junni nit mënuñoo mënuñoo xaar ñoom ñu ne luy pexe ñun nañ bind yonente bi leetar bu ñu ko bindee leetar benn mu dolli nu mbooloo wala mu jox nu ndigal ndigal lu mu digal ñu xam ne loolu la mu digal waaye Abdullah ibn Rawaha ne déedéet yéen li ngeen di bañ moo leen tax a te mooy dee ci xare ñun bi ñuy xeex xeexuñu ngir mbooloo mu bari xeexuñu ngir mbooloo mu bari dañuy xeex ci diine ji nu yàlla yónni ku ci dee dem àjjana loolu mun tax di ko waaye li ngeen di ragal mooy li ngeen bëggoon bëgg ngeen a dee ci xare te bëggu leen a jàkkaarloo na ni loolu lu muy tekki waa ñoom ñëpp ñu far d'accord ni kon nañ dem xeex rek foofu lu ci yàlla dogal ñu xam waaye ndeysaan noonu la ñu xeexee ñu rey Zayd ibnu Haarisa Jaafar ibnu Abi Talib jël drapeau bi ñu rey ko Abdullah ibnu Rawaha jël drapeau bi ñu rey ko léegi ba drapeau bi daanu ci suuf daanoo ku ñuy wax Saabit ibnu Arqam jël ko mi ngi bokk ci Bani Ajlaan bi mu ko yëkkatee ni jullit yi kon waxtaan leen ba xam ku ngeen di jiital mu yor drapeau bi ñu ne ko teng yor mu leen de du ma ko man léegi ñu dëppoo ci kon nañ ko jox Xaalid ibnul Walid Xaalid ibnul Walid moomu bi mu jëlee bi xeex na xeex bu metti wax na ni damm naa lu mat lu mat juróom-ñeenti jeesi damm na ci sama loxo ci bés boobu waaye googu yëpp nag teewul xel daal nanguwul ñetti junni nit di jàkkaarloo ak ñaar téeméeri junni nit buñ gañe woon it da leen waaye xel na nguur loolu loolu tax euh, Xaalid feeñal ci ak nite ak yeewute muy première bis bi moom doxal na ak njàmbaare ba ngoon jot waaye bisu ñaareel bi mu soppi arme bi ni mu ko programme woon ña féete woon gannaaw mu féete leen ñu indi mu ñëw leen ñëw ci kanam ñi féete woon ndijoor mu yóbbu ci càmmoñ ñi féete woon càmmoñ mu yóbbu leen ci ndijoor ñi féete woon kanam dem ci gannaaw bi waaroon seen arme bi noonu mu soppi ko dañoo am tiitaange yoo ngir jàpp ñi dañ leen a dolli mbooloo biñu jàppee loolu ba tiitaange jooju dugg seen xol Xaalid jiite arme bi ba noppi nag di arrière ndànk par ndànk di arrière waaye bi ñuy arrière bëgg a arrière ak bañ rocc ko ndax buñ jekk woon daw dana dis ndax danañ leen dàq te buñ leen dàqee buñu yaxee kenn du mucc waaye def na ci ak yeewute di arrière waa Room it leen a topp si ngir dañoo ragal ni pexey xare la rek ñoo noonu la Xaalid arrière bañ dem seen yoon dem ñibbi Madina maanaam mucc googu euh, kon Xaalid ci yeewute googu la doxal bañ mucc dellu madina ci jàmm xare boobu fukki nit ak ñaar ñoo ci dee ci julliti mu mel ni waa Rom moom euh, lim ba ca dee dëgg-dëgg euh, xamee su ko waaye xare bu mu ute boobu donte li euh, deret ji ñu rayoon yonente bi ni woon nañ ko fayu ji jotuñ te it am na importance bu am ci diine ndax ndax arab yëpp niñ xamee Rom ak doole ji ñu am dañoo jàppoon ne képp ku jóg di jéem a xare yow ñoom moom da ngay xaru rek mu jax buñ ne nag Mouhamed yabal na ab armoom ñu dem jaakaarloo ak waaroom Rome ba ñëw ca ña ca dee bëriwuñ loolu am na leneen lu muy dugal ci boppi arab yi ci ak ragal ak respect buñ leen di jox ñoom déedéet kon ba tey loolu euh, nax saa yut am na importance moom xare mu ëtt boobu. ba tax na ginnaaw bu xare boobu jàllee euh, bari na ci giiri arab yi ñu dugg ci islam euh, lu mel ni Banu Salim dugg si na giiruk Asja ak Ghatfan dugg si. ak Zubyaan ak Fassara ak yeneen sax yoo xamante ne eh, loolu yi moo leen taxa dugg si ci diine islaam kon lii mooy xew-xew yi am ca Xudaybiya ak xare yi amaat ci diggante bi eh, te noonu ma ko tuddee rek mooy li ëpp solo ci siira yonente bi sallallahu alayhi wa eh, ci ay jaar-jaaram liñ ci loo ci xamante ne bu ñu ko nettalee wax ko dana am njariñ lu ci jullit yi mën a jële jàng ko ci lépp dañ ko nekk waaye yi ma jaar seere bi noonu la demee waaye nag xare yooyu indiwuma teqantal yi ngir yu ci bare bari amul ak ak mujj ndax yenn yi day yebal ab armu ñu dem ci ñu doon dogale nit ñi di nangu seen i alal te bu demee dañuy tasaaroo ci biir biir doj yi yaa ca des it du am résultat yi mujj fenn waaye nag eh, li ëppaat solo ci li ci sunu kanam muy fatxu Makka fatxu Makka kon ci waxtaan yi ñu jëm Euh, danañ ko indil bokk yi indil leen li aju ci mu mujjug dundug yonente bi salallahu alayhi wa sallam li ci ab jullit mën a jàngate it bu soobee yàlla danañu ko indi wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.